salaamaaleykum amateur de foot yi nuyu nañ leen ko ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey 27 mai 2024 ci wàllu tàggat yaram dinañ wax ci Xavi mi nga xam ne dafay prévenir nouveau coach bu Barça bi di war a ñëw ñu naan ko kan Ant Flick nee na ko du yomb de dina metti trop dina metti gagné rek moo la war lu ko mooy ah maa ngi ñëw kàddu bi mu jot a génnee benn par benn ci conférence de presse bi nga xam ne amoon na ko wax leen ko benn par benn Xavi nee na j'étais triste hier. nee démb mën naa ni euh, jaxasoo woon amoon na lu ko métti mu ngi noonee waaye it yamaatuñ foofu et je le je le suis encore plus ba tey mu ngi noonee waaye je voulais continuer mais ce ce ne euh, pas possible du mën a nekk. c'est le football et c'est la vie football moo demee noonu àdduna aussi euh, mu ngi noonee j'essaie de contrôler mes émotions maa ngi jéem a gérer samay émotions mais c'est très difficile xaw na metti trop pour gérer loolee waaye nous nu sommes préparés pour ce match euh, de la même manière pour euh, que pour le premier nan ko débuté woon ci championnat bi dernier match bi noonu lañ ko préparé te yàlla def nañu am ndam ne nous avons fait bon de bon du bon travail et notre espoir est de continuer était de continuer waaw nee na def nañ liggéey bu mucc ayib waaye seen yéene moo nekkoon ñu continuer mais malheureusement président bi mayu leen ko waaye yamaatuñu foofu savi aux nouveaux entraîneurs je vous dis vous allez souffrir di nga sonn vraiment c'est un travail difficile il faut être patient liggéey bu metti la waaye di nga tey di nga dal dinga xaar aussi di nga xaar ba ci kanam a kanam pour mën a gis yenn résultats yi waaye yamaatuñ foofu leneen la ko kàddu nga xam ne Safy jot na ko wax dinañ ci ñëwaat mu ngi noonu nee na je pense que notre travail n'a pas été suffisamment apprécié li ne jot nañ ko liggéey foofee ah, des nañ ko ah, mën naa ni jox gëdd des nañ ko bàyyi xel j'ai euh, pris des commandes j'ai pris les commandes quand l'équipe était en neuvième position nee na jëloon na équipe bi ba équipe bi nekk en neuvième position maanaam ci bas tableau bi ci mi tableau bi bokk fa la jëlee Barça nekkoon ci ay jafe-jafe nee na ci saison boobu mu fexe ba yóbbu Barça boobu mu dem deuxième position loolu nag c'est exceptionnel foofu et remporter le la l'année waaw la saison suivante ci la mujjee jël championnat boobee nee na je pense que le travail que nous avons accompli dans cette situation difficile n'a pas été apprécier li nga xam ne jot noonu ko reyante ci euh, club bu baax sax boobee ak fañ ko jëlee ak fañ ko yóbbu gars yi jotuñu koo bàyyi xel te it euh, santuñu ko ci mu ngi noonee waaye yamaatuñu foofu nee na kontaan na bu baax a baax car euh, je sais les supporters les le travail que nous avons fait nee na nag supporters yeeg fan yi bég nañ ci liggéey bi nga xam ne moom jot na koo def ci club boobee di FC ab Barcelone nee na je sais que ni j'ai commis beaucoup d'erreurs def na ay erreurs yu bëree bëri nag xam na ko nee na je ne suis pas parfait nee na parfait wul te it du ko sax jéem a doon mu ngi noonee nee na devon devons nous améliorer dans de nombreux aspects j'ai beaucoup appris nee na dinañ gën a góorgóorlu ci yeneen i mbir te it jàng na bu baax a baax ci euh, dund ki nga xam ne jot na ko dund foofee euh, ca FC Barcelone lam jotoon euh, coaché mu ngi noonu nee na ce serait un honneur d'entraîner à nouveau le club de vie un jour nee na dina ko bégg loolu trop trop ëllëg mu. Courchewaat kooki di FC Ababso nee na bañu ci dara nee na nous avons nous n'avons pas remporté de titre cette saison car nous n'avons pas bien performé dans quatre ou cinq matchs nous avons été malchanceux et nous n'avons pas pu rivaliser nous bien joué pour la majorité de la saison nee na jëluñu titre cette saison nag ñàkk nañ chance c'est vrai waaye tamit dese nañoo performer ci yenn match yu tolloo 4 ba 5 yoo xam ne nii mën naa ni defuñu fa lu am solo ba tax nag ñu war a mën a euh, gagner championnat bi waaye rivalité euh, contre Real Madrid daanaka match yi dañ ko dóor c'est très difficile pour lui pour mu war a mën a jël loolu championnat bi ñu laaj ko sa conseil ci coach bu bees bi nga xam ne war a ñëw baax sax mu ne je lui dirai dirai la doit faire face à une situation très difficile neen ko wax ne ne dina jàmmaarloog benn moment benn mbir ay mbir yu difficile yu metti sax ci club bu baax Barça boobee pensez-vous que le prochain ménager sera traité moins sévèrement car il vient de l'étranger nag xalaat nga ni loolu ko journaliste bi wax xalaat nga ni coach bu bees bii ba xam dinañ ko traité moins maanaam lu gën a néew comme nun ko doon traité nag kooku étranger la maanaam jógewul ci pays boobee di Espagne mu ne ko je ne pas nee na xamu ci dara waaye li mu gën a xam mooy que en tout cas li war ci moom mooy que mu sauver club bi di gagné lu ko mooy ah amul étranger ou pas mais dina daj dëgg loolu la sax génn ah, di leeral mu doon kàddu yoo xam ne jot na ko génne ah, kookee ngeen di gis noonu ci ginnaaw di Ronaldo ah, moom nag mu ngi doon célébrer montée Real Valladolid it si pelouse boobe ak mooy moom ngeen di gis noonu mu jël poids loole mu ngi noonee club boobe nag moom mooy borom Leicester City Ipswich Town ak kooki naan ko Southampton ñoom ñoo yëkk première division anglais muy Premier League bi déwén. ñoom ñoo ko war a football woyal jàppale club bi bu baax a baax mu ngi noonee gars yi Manchester City nag moom ngeen di gis noonee démb nag ñoom ñu ngi doon célébrer seen titre Premier League foofee ca Man City mu ngi noonee ngeen xamee ko noonu mu doon loo xam ne nii c'est quelque chose d'exceptionnel pour Guardiola nag célébrer waale nañ coupe du monde des clubs bi ak super coupe d'Europe bi Luka Modric a été élu meilleur joueur croate de la saison pour la douzième fois huitième fois consécutive fois Luka Modric mii ah waa baax na en tout cas daal. foo foofee ca Croatie moom Croatie moom teg ko fa du yomb Quique Sánchez Flores entraîneur Séville euh, le problème de Barça n'est pas Xavi c'est le Real Madrid <laughs> kii moo neex <laughs> kii moo neex <laughs> bu la mel catalan yi jàppee nga xam mu ngi noonee gars ngeen xamee ko noonu ñëw ci mën naa ni euh, classement euh, pra kii championnat yi nga xam ne jot naa am cette saison bii nii championnat yi jeex na ñoo foofu Serie A italien Inter Milan moom moo jël premier am 94 points Milan AC jël deuxième am 75 points Juventus jël troisième am 71 points waaye kooku ñu naan ko Atalanta jël quatrième am 69 points Bologne jël cinquième am cent 68 points AS Rome jël sixième am 63 points ñu dem ci zone relégation bi muy kan kooku ñu ko ko Salernitana moom nag 17 points la am jël vingtième solo 30 point jël dix-huitième du dix-neuvième bokk. waaw kookee naan ko mën naa ni Cremonese jël euh, dix-sept dix-huit dix-septième am trente-cinq points mu ngi noonee ñooñu nag ñoo nekk ci zone de relégation bi dañuy wàcc daanaka mu ngi noonee kookee di Liga espagnol Real moo jël première am quatre-vingt-quinze points waaye yamaatuñu foofu Barça jël deuxième am quatre-vingt-cinq points Girona jël troisième am quatre vingt jël quatrième am soixante-seize points waaye it kooke ñu naan Athletic Bilbao jël cinquième am 68 point mu ngi noonee waaye it kooke di Granada Almeria Cadiz ñoom ñoo jël ndaara yi ci euh, nok zone relégation bi vingtième Granada kooke euh, dix-neuvième Almeria Cadiz dix-huitième ngeen xamee ko noonu kooke ñu naan ko euh, mën naa ni Greenwood moom nag boo xoolee cette saison narul toog foofee ca Xetafe annoncé na ko te mu ngi remercier fan yi bu baax a baax a baax ak club bi niñ ko jàppalee neen dafa reconnaissant ci ñoom ci niñ ko jàppale mu retrouver waat niveau am teguwaat ci temps bi mu ngi noonee gars yi loolu nekkoon xibaar tey 26 mai 2000 27 mai 2024 ci wàllu tàggat yaram képp koo xam ne nag abonné go suma chaîne YouTube bu ko di taay aboneel ngay liker di commenter di partager loolu ngeen ñu mën a soutenir bu baax a baax ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def di leen jox xibaar matin midi soir mu ngi noonee gars yi jàmm ci yéen merci à vous gis naa seen i encouragement gis naa seen lépp di leen gën a sàkku ay ñaan ngeen ñaanal ñu bu baax a baax ñun nag ñu leen di ñaanal nag famille lañ ñun ak yéen vraiment ni ngeen ñu fonkee nu ko raw lañu leen fonkee yàlla na seen jàmm yàgg kontaan nañ ci yéen gën leen ñoo yokk ñaan gën leen ñoo booster gën leen ñoo encouragé loolu la ñuy soxlaa ci yéen nag effort yi ñuy def loolu rek ngeen ñu mën a fayee mooy que ngeen abonné di like di commenter mais aussi di ñu encourager di jégalu nag bu baax a baax a baax ci bruit bi tey environnement bi nekk dafa dañoo nekk chantier moo tax bruit bi xaw a bëy mais ñu ngi tuub yaa jëf.